CODAS dañoo xooxal xoox xooxataloon maanaam dañoo harceler sénégalais yi semer la peur ci xolu sénégalais yi semer la détresse menacer sénégalais yi ba ñemeetuñu woon wax seen xalaat donc CODAS mu ngi juddu mois de mars à la suite de la dénonciation faite par la notre fille Adji Raby ci la CODAS juddu parce que dañoo toog gis ñu koy lyncher di ko jeter en jeter ko en pâture ka nga xam ni moom la ko sekkal mu yor ay million ay millier de militants am capacité arrêté ko arrêté wu ko am capacité génn benn jour rek ne leen kii ci askan bi la bokk bu ko kenn saaga bu ko kenn xoxatal bu ko kenn tilimal ndax jigéen la ku ñu war a aar la ndax dañoo ne que jeunesse bi moom dafa ne amuñu statistique yu koy prouver mais moom dafa ne que jeunesse bi dafa ànd ak moom Adji Raby Sarr ci jeunesse bi la bokk Adji Raby Sarr étant jeune donc moom waroon na symboliser fusion boobu muy réclamer avec la jeunesse sénégalaise en protégeant cette jeune fille quel que soit Alpha ak lu mu ko mën a coûter donc loolu ñu gis ni ba tey jii dégg nañ ko naam démb muy artu état bi naan bu ko dara jot ñun de am nañu conviction ni bu ko dara jotee ci sa loxo yow la jóge ndax yow kese lañu gis xale bu am vingt ans nga jàkkaarloog moom dans un dossier judiciaire nga toog say militant di ko saaga vingt quatre heures sur vingt quatre di génn en live vingt quatre heures sur vingt quatre di ko lyncher di ko humilier di ko saaga di ko martyriser te mosoo àddu bu leen ko waxati lu ñaaw bàyyi leen ko te c'était plus facile monsieur Sonko c'était plus facile démb nga ni sama nga wax say militant ñu arrêté lynchage bi ñuy def xale bi di ko sosal di yàq deram tere ko nelaw mënatul nelaw parce que on sait que l'internet tue on le sait donc c'est vous monsieur Sonko qui êtes en train de tuer Adji Raby Sarr bu ko dara jotoo jotee sa loxo yow la jógee parce que déjà tu as une armée de tueurs à ses trousses depuis un an et c'est cette armée de tueurs silencieux qui a motivé notre présence nous en euh, CODAS pour que ñu jog def bouclier protéger Adji Raby Sarr